sëñ bi Malick Niang ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay. yow yaa yor wàllu gestion nationale bu projet euh, ci wàllub euh, projet lépp lu jëm kon ci gestion projet ci Tostan Sénégal euh, ëllëg muy juróom benn fan ci weeru février àdduna wërngal këpp war a màggal bëccëg bi ñu jagleel xeex li nga xamante ne moom mooy mutilation génitale muy li ñuy xarafal jigéen ñi wax ñu bëccëg bi ban solo la am ci yéen. waaw am na solo bu baax si ñun xëy na sax euh, kenn ku nekk ak na mu dégg rek lay waxee waaye ñun si wàllu ONG Tostan gi ma bokk gis nga baatu xeex boobu nga tudd sànq ak baatu xaraxal boobu. Mm-hmm. dañ koy xaw a moytu sax suñu kàddu parce que dañuy jàpp ni maanaam wàllu aada bu ñuy defal jigéen ñenn ñi di ko wax kàddu ngal si pulaar yeeg yenn xeet bu ne maanaam dañuy wodd rek kàddu bi. donte li ñuy wax yëpp benn la mais kenn ku nekk ak na mu koy dégg lu si jublu parce que dañu jàpp ñun ni wàllu aada wàllu excision bii ngay tudd tey ji muy kàddugal te ñu koy waxee si yeneen kanam te nga anam te tudd ko sànq ñun cër la bu ñuy jox askan bi parce que nit ku si nekk li nga xam ne dafa bokk si yow su fekkee ni dafa mel ni maanaam dañu koy ŋàññi xëy na mën na indi si yow beneen taxawaay boo xam ne dangay ngay mel ni kuy jàkkaarloo ko parce que kenn bëggul kuy maanaam di ŋàññi sa aada wala di ko waxee benn anam bi mm-hmm. bésu suba bi nag nga xam ne si la àdduna wërngal képp maanaam di màggal li nga xam ne dañoo bëgg lépp luy maanaam wàllu aada bi ñuy defal jigéen te nga ko tànk sax xëy na mu gën a leer si ñuy déglu ñu koy waxee ay xeex wala ñu koy waxee xarafal ma jéggulu si rek xëy na pour nit ñi mën ñu comprendre moo tax ma wax baat boobu mais ñun si mm-hmm. toftan beneen kàllaama la ñuy jëfandikoo dafa nekk bés bu am solo mooy ban kàllaama bi muy muy journée international tolérance la ma ne man kàddu bi ñuy waxee ñun. Mhm. xam nga ñun si waa Tostan dañuy moytu di wax xeex ak di moy di ma maanaam ay lutter ay combat xeex wala di wax ay mhm. xarafal. Mhm. donte nag tekkin bi benn la. aada la ñuy wax ñun bi ñuy defal jigéen bu dee wolof bu dee si pulaar yi ñoom ñuy wax ay kàddu ngal ak yooyu. mais moo benn wax bi la nag maanaam dañ ko dañoo woddu kàddu bi rek daal. bés boobu am na solo si ñun parce que xam nga boo nekkee si benn mbir. àdduna bi yëpp jël benn mbir boo xam ne xam nañu lii dafay faagaagal maanaam wérgu yaramu jigéen ñi ak wérgu yaramu njagamaar yi muy xale yu jigéen ñi. Mhm. waa kër docteur yi wane nañu jafe-jafe yi nga xam ni jigéen ñi ñu ngi jànkoonteeg moom te mu sukkandiku jóge si maanaam aada boobu ñuy defal jigéen ñi muy excision. Mhm. kon bës boobu bu fekkee àdduna bi dafa bëgg taxaw àdduna bi yëpp ñu taxaw jël benn bës ni ah kenn ku si nekk na ngeen taxaw kat ñu bàyyi xel si loolu day nekk maanaam. lu am solo si ñun Tostan ndaxte Tostan xëy na ràññee nañu ko si maanaam dugal bu muy dugal loxoom ci fexe ba maanaam loolu jóge fi donte sax ñun suñu wàllu programme ëmb na loo xam ne jéggi na aada bi waaye dafa fekk ne aada bi moom moo si gën a fës ci déclaration yi nit ñuy def si bàyyi bi koy def ba tostan daanaka dañ koo tappal sax ndomba tànk mel ni moom moo si njiit te ñun dañuy gunge askan bi rek communauté yi ñoom ñu bàyyil seen bopp aada bi kon bés boobu am na solo si ñun incha allah te rafet naa ni. Mm-hmm. am na solo it képp koo xam ne rek muy gouvernement wala muy acteur boo xam ne rek yàgg ngay liggéey si loo xam ne da bëgg nit ñi ànd ak gi gu yaram ak tawféex ci seen yëngu-yëngu ñu gis ni kon bu yàggul dara dangeen ci boole léegi ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa diine yi ci ah, liggéey boobu ah, ba xam am na lu mu soppi ci gis-gis bi ci société yooyu am wala communauté yooyu di ko def. waa dëggal bu baax sa laaj bi ndax ni kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ndaw yi sax mënuñoo liggéey lu mel noonu jëm si wàllu aada bi ni nit ñi dañoo bëgg ñu jëlee fi lii di maanaam tey ji aada bi ñuy defal jigéen ñu koy wax excision te yow nga waxee ko beneen anam bi. Mm-hmm. loolu ñàkk. parce que xam nga dëkk bu nekk rek kenn ku nekk am na ku muy déglu. Hmm. xam nga mën naa laa jox benn misaal rek. Hmm. feebar bi ñu nekk tey jii muy Covid bi dégg nga ñu naan communication bi baax na baaxul acteur communautaire. Hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a askan parce que kenn ku ne dafa am koy déglu kenn ku ne dafa am ku mën a wax wax bi dugg si sa nopp. xam nga man Malick Niang maa ngi nekk ONG Tostan man olof laa nekk bureau national nekk Thiès na maa ngi dem fu ne Sénégal ak fu dul Sénégal réew bi xaw naa ko wër fi Tostan di yëngatu yëpp si dëkk yu ñu wër mais loolu lépp tey jii lu ma si mën a am am xam-xam lu ma si mën a am am dégg-dégg lu ma si mën a mën a am am expérience ak jaar-jaar ki nga xam ne moom mooy dund tey jii ak maanaam askan bi nekk ak moom jege ko suy wax ak moom moo koy njëkk a gën a déglu kon sëriñ yooyu ngay wax muy kilifa diine yi ak diine bu mun la doon nag muy diine islam ak diine kaltube ak beneen diine bu mun la doon ñoom ku si am sa jafe-jafe da dem si diine kilifa diin ñoom ñooy tudd kilifa diine yi ñooy takk jabar kilifa diine yi bu nit ñoom ñooy dem di robi ji boo am lee jafe-jafe moom ngay dem si moom mu ñaan kon kooku xam nga yow sa wéeruwaay la ba nga xam ni sukkandiku si ñooñu tamit ngir ñu mën a wax ak ñoom xamal leen ni kat lii ngeen def bëgg koo méngaleeg lu diine santaane diine santaane wu ko te jotuma la ko wax sax si nasaraan bi parce que nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun mooy suñu jubluwaay mooy suñu référence mooy suñu royukaay. Hmm. njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doo si dégg kenn ñu ni la mës nañ koo defal aada bi du ay soxnaam du ay doomam. te du lu mu digle mais ñenn ñu bari xam nga dañuy jaar ci lëndëm lëndëm boo xam ne askan bi yeewu ko di leen wax naan waaw diine ko santaane boo ko defarul xëy na yow boo toggee kenn du lekk ak yow setoog am na ñoo xam ne dem nañ sax bu dugg ci maanaam wàllu tey jii di def aada bi ngir mënam am borom kër problème de mariageabilité ñii maanaam boo toggee duñ ko faalee jigéen ñi bëgg sëy yooyu yëpp ay jafe la yoo xam ne rek ay wax la tegul fenn kon kilifa diine yooyu bu ñu ñëwee sukkandiku ci ay hadis sukkandiku ci ay aay yoo xam ne dañ lay wan ne la amul fenn te doo dégg kenn ku la ni aaye sàngam wax na ni lii la wax si wàllu excision dañ koy def. Hmm, hmm. dañ lay bàyyi si biir rek donc ñooñu nag dañuy ñëw pour leeral ñi nga xam ne xamuñu nekk si lëndëm kilifa diine yooyu. Hmm. ba nga xam ni ñun dañuy liggéey bu baax ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi muy communicateur traditionnel parce que ñoom dañ si am solo ak ndaw yi. pour que li nga xam ne ñun ñu ngi siy béy suñu waar bi si ànd tamit ak askan bi ak ñu jógee si askan bi muy AMS yi kilifa diin yooyu am nañ ci doole bu am solo boo xam ni maanaam njuréef yi ñuy am si wàllu résultat jëm si ñi dëkk yi bàyyi te mu jógee si loxo kilifa diine yooyu nekk si gox-goxaat am na solo ndax dañuy dem sax ba si émission rajo yi di si wax di dem si dëkk-dëkk yi di solaat seen daal di dem seen moroomu kilifa diine ak moroomu dëkk di leen yee ba ñooñu di bàyyi aada bi kon seen liggéey war rafetlu nañu ko taxawaay boobu am na solo lool. Mm. waaw bëccëg boobee nga xamante ne kon ah, danu ko jagleel lu jëm ci xarafal donte ba léegi nangoo ko moo boobu waaye ngir sama auditeur <laughs> comprendre bu baax faaw ma ah, ah, ngi koy amal atum 2021 bi ci jamonoy pandémie mi mooy kon crise sanitaire bi euh, loolu lan lay indi kon particularité ci célébration bi. waaw li muy indi rek moom mooy xam nga célébration bi wax naa la sànq ni la si nasaraan daaw ñu ngi ko amele woon Kolda. Mm-hmm. si njiitu maanaam tey jii comité technique national bi nga xam ne mu ngi ëmb bokk bànqaasu maanaam ministère de la femme jiite ko. Mm-hmm. direction de la famille moom mooy chapeauté maanaam tey comité technique boobu ONG Tostan dafa bokk si comité technique boobu ak yeneen. am na yeneen organisation damay bañ a lim ñuy fàtte ñenn ñi rek ak waa programme congé muy UNICEF UNFP ak acteurs yi si yëngatu yëpp mm-hmm. bari na ay kuréel yoo xam ni ay kuréelu jigéen la ñu ay kuréelu ndaw la ñu yeneen ONG la ñu mm-hmm. ñii dañoo nekk si wàllu tey ji éducation ministère sectoriel ñoo ñëpp ñoom ñoo dajaloo ak même sa mbokku taskatu xibaar yi mu nekk comité technique daaw biñ ko amalee Kolda amoon na sa ñeent moroomu taskatu xibaar yoo xam ne ñii si wàllu télévision la ñuy yëngatu ñii si wàllu tey jii presse écrite ñii si wàllu rajo ñii si wàllu réseaux sociaux yi ñu comité technique bi ak ndimbalu direction de la famille si plan d' bi ko UNFP jàppale woon programme congé fexe woon nañu ba def benn concours boo xam ni sa moroom ay tasu xibaar ñoo ko gañe woon ba ñu neexaloon leen àndoon nañu ak ñun tamit Kolda jox leen ay ordinateur dernier cri hmm. pour sargal leen xam nga loolu présentiel la woon maanaam ñun ñëpp dañu teewoon ak waa comité technique bis la ñu jóge fii jóge Thiès ñu jaar Dakar man Thiès la ñu jaar jël ma parce que si yoonu Ila Touba bi la ñu continuer dem ba Kolda après noonu lañ fa defee ñetti fan fekk célébré ko si kanamu autorité administrative yeeg mairie bi ak communauté yu Kolda mu nekkoon xew-xew bu mag ren nag ginnaaw feebar bi mbas mi dafa dugg muy Covid 19 bi. Mhm. ku ne xam na ni daje dañ koy tere te daje dafay gën a wesaare feebar bi. Mhm. ba loolu sax même ñun ñuy tosal am na suñu yenn activité yu bari yoo xam ni Covid boobu impacté na ko parce que ñu waroon defal ay déclaration publique yoo xam ne pour ñuy bàyyi à affaire excision bi la ren jii boori Fuuta. Mhm. waaye ak ñàkk tere bi ñuy tere nit ñi dajaloo te déclaration day ëmb lu mat ay téeméeri Eh, lu mat ay juróom fukki dëkk lu mat ay juróomi téeméeri nit cinq cent personnes ay cinquante villages wala lu ko ëpp xam nga yomb la hmm. dajale même boo bëggee jël mesure barrière dina indi ay jafe-jafe ba nga xam ni yooyu sax dañ koy xaw a dàqandiku di xaar jëmmi jamono xëy na mbas mi jóge looloo waral célébration ren bi tamit liñ ci jàpp moom mooy nañ ko def moo xam ne danañu mën a toog vidéo conférence xam nga léegi yoo xarala yi may na la kenn ku ne taal sa ordinateur am sa connexion ngay wax sa morom di la gis. Hmm. ñu partagé loolu la comité technique bi fas yéenee amal incha allah suba. 6 février ngir célébrer ko boo xam ne tostan moom am na communication bu mu war a def si liggéey bi mu def sukkandiku si maanaam yan tontu la indi maanaam si affaire MJF sukkandiku maanaam si jamonoy Covid bi am na yeneen ONG war a seen i présentation yu ay ndaw am na tamit waa direction de la famille ñoom nga xam ne ñoom ñoo ba banqaasoo si nguur kenn ku si ne daal am na loo war a indi bu ko defee mu nekk bésu weccante xalaat échange d'expérience boo xam ne kenn ku ne dinañu màggal bésu 6 février bi waaye si anam boo xam ne de manière virtuelle lay doon mais du nekk présentiel comme taw Kolda loolu moom mooy li nga xam ne rek moom lañ ko fas yéene célébré ren du tee nag ñun tamit hmm. tostan ci ndimbalug UNFP yi ci gox-goxaat yi am na ay activités yoo xam ne dajale nit ñu bari yoo xam ne tamit incha allah fas yéene ñoo màggal bés bi même bu dul 6 février tamit ñu fàttaliku ko parce que am na bés boo xam ne dañ koy jagal journée boo xam ne rek dañuy mën a promouvoir maanaam lépp luy abandon excision si biir Sénégal. comme ñu ngi wax mbas euh, jamono yi mbas mi est-ce que loolee du am lu muy indi ni gàllankoor ci seen mbëbët euh, mooy euh, jeexal li nga xamante moom mooy excision ci boppam fi ak atum 2030. waaw xaw na maanaam xaw na yeexal ralentir maanaam xaw na yeexal activité yi ñu waroon def itte yi nga xam ne ñu ngi koy amal muy ñu tostan muy ak keneen ku mu doon. Hmm. parce que xam nga bu fekkee ni nguur gi dafa dogal nii tere nañu maanaam dajaloo mbooloo te dëgg la ndax dajale bi tamit dafa indi yokk feebar bi te mën na jur leneen te bala nga ni naam nekk fa parce que wér gi yaram it dafa nekk loo xam ne moom la war a jiital si lenn lu ne bala man mii di waxoo bala ngay wax wala bala ngay lekk wala bala ngay def bala ngay naam tal tal ko kon wér gi yaram tax na sàmm wér gi yaramu askan bi te ñun tosan dañ si bokk bañ nañ koo ñun bi Covid bi amee dañoo mujj wax kenn ku ne demal toog sa kër ngay dem di liggéey def télétravail ñu ñoo xam ne mënuñoo ñàkk ñëw léeg-léeg bureau assuré permanence bi liggéey bi di dem loolu affaire bureau la même bi dañu xawoon a wàññi activités yi loolu impacté na ko tamit lay amee jafe si lii nga xam ne moom mooy jéego yi nga xam ne ñu ngi ko doon dox pour maanaam gën a yokk suñuy activité ngir maanaam affaire aada bi jóge fii xëy na loo daan def téeméer xëy na léeg-léeg mën na am genn wàll ba ngay def loo xam ne da ko daan def ngir communauté yu bari wax naa la sànq am na ñu waroon a déclarer te déclaration dafa am solo parce que day nekk bés boo xam ni ñeneen ñi la wër dañuy yëg ni kat gox sàngam bàyyi nañu aada bi ñooñu mën na leen a inciter ñoom tamit ñaax leen ñoom it ñu topp si ñooñu parce que bu fekkee nit ñi ëpp dañoo bàyyi yow mi fi des boo naree wéet si géew bi da ngay mujj fekk mbooloo bi xam nga activité yu am donc am tuuti lu muy wàññi si maanaam résultat yi bi tamit moom mooy liñ si ragal léeg te sànq wax nañ ko mooy am na ñoo xam ne mën nañoo profitoo ci tekk-tekkaaral ji am parce que léegi nit ñi génnatuñu am na ay couvre-feu fii wala am na ay tere dem ak dikk bi wàññeeku na nga ni xaaral man ma sàcc yor tuuti suuf jéem def aada bi xëy na kenn du ma yëg kenn du ma gis mais loolu tamit tax na ñun ñu jël ay matukaay si wàllu def ay émission rajo waaye tamit def ay kenn ku nekk ay comité de vigilance yoo xam ne ku si ne ubbi sa bët si gox goxaat yi nga xam ne ñu ngi fay yëngatu pour que loolu di aada bi nit ñi bañ see profité di ko def maanaam ñàkkul nag mën na am ñu koy def di nëbbatu parce que aada moom lu ñu tere loo xam ne même bu dul affaire Covid sax ñi koy def dañuy daw nëbbatu wala ñu dem si yeneen i dëkk jotuñu ko wax si nasaraan problème boobu tamit indi na ay jafe-jafe si wàllu maanaam nga jóge Sénégal dem beneen dëkk parce que fii loi baa ngi fi parce que mën nga dem fële ñëwaat ñëw yooyu yëpp ay problème transfrontalier yoo xam ne dina indi jànkoonte mais Covid bu ci waxantee dëgg yàlla wàññi na te mën na indi gàllankoor tamit si yenn activités yi nga xam ni mënoon na tax maanaam ñu gën fee gëna dugal suñu loxo muy tostan ak képp ku mun la doon si fexe ba aada di jóge fi daal. Hmm. Euh, donte dañ ci defee jéego ak yeneen sax kuréel waaye teewul euh, muy pratique boobu ñu ngi koy nemmee ko ba léegi ci Sénégal am na ci ay gox yu mu nekk ndax mën nga ñëwaat ci gox yooyu ak yenn xeetu communiqué communauté. ñoom ñoo ko dese ba léegi. xam nga sax xëy na ba ñu ma joxoon ñu ma kenn mais bu fekkee ne dañuy waxante dëgg Sénégal xëy bu ñu waxee ab région tamit région du benn rek ka fa dëkk. Hmm. te jii Thiès laa dëkk man cees gi li muy Thiès doo dégg ñuy wax affaire aada bi mais excision am na Thiès. Mhm. parce que am boori mbuur yi stigmatisé wu ma kenn boo demee am na communauté ay bambara yoo xam ni ñu si biir région bi wax naa leen dëkk bi njëkk bàyyi aada bi région de Thiès la nekk muy Malicounda Bambara. tey jii rek euh, jiré ji nga nekk côté Sédhiou moom moo si mujjee bàyyi deux mille dix neuf ñu toll si maanaam juróom benn junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent six mille huit cent Ah, communauté yoo xam ne bàyyi nañu excision bi si juróom-ñaar fukk ak ñeenti déclaration 74 déclaration 6849 communauté ñoo bàyyi boo ko dooree 1997 ba atum 2020 kon région yi nga xam ne la ñu gën a nemmeeku taux de prévalence bi maanaam aada bi gën faa kawe. Mhm. bokk na si waa Fuuta Maatam te li ko waral ñu si bari xam nañu ko xam nga bëgguma joxoñ benn xeet mais xam nañ ne pulaar yi ak aada dañ si hmm. boo demee si ay yenn dëkk yu mel ne tey ji Kédougou ay Tambacounda Soninké yeeg soose yeeg ñooñu ñooñu day def aada bi xeet bi laay wax maanaam mais loolu ñëpp ko xam si Sénégal boo demee hmm. tamit côté Kolda Casamance Kolda Sédhiou ay Ziguinchor aada bi xawoon na fa bari donte mi ngi mais ba léegi des na fa waaye tamit teewul am na yeneen dëkk yoo xam ne yu benn benn la ñuy doon yoo xam ne am nañu même nee naa la Dakar gii nga nekk yow sax dakaar si boppam sax am na ñoo xam ne xëy na ñàkkul parce que Dakar kon ndox daje la Thiès ay ndox mhm. daje la dëkk yooyu ay ndarak lu ne loo dégg ñuy waxu aada bi ndaxte askane wuñu ko si wolof yi askane wuñu ko yenn xeet yi mais tekkiwul ni yeneen xeet ñi ngi ñëw si dëkk yooyu jaxasoog ñoom mhm. di di di mën a nëbbatu léeg di ko def donc mais dëkk yi si gën a tar daal nañu jàpp ni mooy région du nord yi ak région du sud yi ak région est foofu la gën a tare mooy du maanaam diwaan yi ma la wax ay côté Fouta ma région de Matam ay côté Tambacounda ak gu ay côté lu mel ni par exemple tey ji ay Kolda ay Sédhiou ak ay Ziguinchor foofu la gën a tare donte nag am na sax yeneen dëkk dëkkaat yoo xam ni ñàkkul ñu ngi ko fay def moo xam ñu sew sewaan la mais pourcentage bi gën a tax ñuy wax daal si gox yooyu la nekk daal hmm. tey jii boo doon def euh, xayma Sénégal ana fan la toll boo ko méngalee ak yeneen dëkk yi rawatina ci sous-région bi ci xeex pratique boobu. waa xam naa ni Sénégal wax dëgg yàlla bu njëkk ba moo nekkoon si kanam bu ñu waxantee dëgg rek bu ñu naan wax kenn ku si ne Sénégal nga daan ñëw di jàngate te loolu rek du si wàllu affaire excision bii rek si lu bari nag xam nga dañ lay wax ne la sénégalais ñoom. Hmm. pexe yaa nas ay pexe yàgg nañ see ay. mais après ñoom li ñu nas dañuy bàyyi ñeneen ñooy ñëw jël ko jël loolu lépp ñoom dem jëfoo ko mën naa la jox misaal Burkina Faso. Mm-hmm. man dem naa Burkina Faso daaw rek ànd ak waa programme conjoint UNICEF UNFPA parce que tostan dañ ko si invité woon ñu ànd ak délégation gouvernement Sénégal waa direction famille yaa ngi si woon ministère sectoriel waa justice waa armée wa police a ngi woon si délégation bi seen représentant ak ay santé ay éducation ñoom ñëpp ngi si woon délégation Sénégal ñun rek ñoo si doon ONG bu ñu invité société civile constant ñu koy sant ak gërëm tamit partenaire yu programme projet UNICEF UNDP yu ñu si invité woon échange d'expérience la woon si wàllu maanaam weccante xalaat diggante doxalinu Sénégal ak Burkina mais boo demee Burkina Faso wax dëgg yàlla ñoom romb nañu te li ko ni moom mooy volonté politique président de la République si moom moo jiitu njëkk xel xalaatul di ko def moo njëkk nekk avocat ba ministre de la femme tegu si mu am tamit ay kilifa diine yoo xam ne dañu am benn comité technique boo xam ni comme ni ñu amee fii comité technique bañ nañ ko ba lool dañ ko boole si seen programme di def sax ay tribunal populaire yoo xam dañuy dem si dëkk yi taxaw di àtte nit ñi waxuma la dem si tribunal tëju nii dem ba si ab village dem sa mairie ba taxaw pencoo ko fàng mbedd mi juge yi sol seen magistrat yi sol seen tenue yooyu ñëw ak seen robe yi ñëw avocat yi ñëw ñuy àtte ñoo xam ne dañ leen a kon dañ la dañ leen a jiiñ maanaam dañoo def aare bi wala dañoo def complicité di leen ci tëj ñun fekk nañ fa benn jugement loolu exemple pédagogique la pour wane ni kat loi baa ngi fii ku ko def lii mooy dal sa kaw xam nga nag Sénégal ku nekk ak sa dëkk waxuma ni Sénégal dafa mel mel ni ñoom parce que ku nekk ak say réalité mais ñooñu mën naa ni ñoom wax dëgg yàlla jiitu nañ ñu si côté boobu te ñun war nañ see jàngat xoolaat suñu bopp. Mm-hmm. tey jii am na dëkk yoo xam ne tudd nga ko sànq ay Mali gis nga ko fan yi da ngay dégg bari na dëkk yu déclaré donte tamit day am ay jafe boo hmm. demee si yeneen dëkk mais Sénégal it nañu jàpp ni ñu nit li ñu am du du du du lu ñu war a ñàkkal fayda. Hmm. parce que liggéey bu am solo la ñu def boo xam ne tamit tax na. tey jii si Afrique wax dëgg yàlla ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo pour affaire aada bi jóge fi Sénégal raw na dëkk yu bari xam nga ay Soudan ki yeneen dëkk tey jii ay bari woon nañu ñoo xam ne dañuy sukkandiku si programme Sénégal parce que dem na ay Djibouti ay Soudan loolu lépp ngir séddoo programme am te sosan Sénégal la nekk sosan sosan Sénégal la bawoo su demee bay dem ay Guinée Bissau di dem ay Mali di dem ay Mauritanie di fa yóbbu programme di dem ay gambi di dem tey jii ay Mali ay Djibouti ay somali loolu ngir yóbbu fa programme bi te programme bi du woon excision rek programme holistique la waaye excision daf si am fànn bu am solo kon loolu it wax nañ ne mën nañ ko ndayale Sénégal te loolu tamit sa jéego yu am soo ngi si am si taxawaayu gouvernement Sénégal bi nga xam ne tamit direction de la famille ministère de la famille mais tamit taxawu tey ji ONG yi nga xam ne tamit ak partenaire yu mel ni UNICEF programme conjoint UNFPI ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi siy jàppan bari na ay organisation internationale yoo xam ni ñoom ñëpp ñi ngi dimbali si wàllu maanaam doole ay bailleurs pour que nit ñi mën a matale maanaam liggéey bu am solo boobu donc Sénégal mi ngi siy def ay jéego waaye waruñoo naagu des na parce que ba léegi nii aadam mi ngi biir Sénégal hmm. Niang yow yaa yaa doxal lépp lu jëm ci wàllu projet fii ci euh, Sénégal te kon tostan di ko def ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay sant ak gërëm di la sargalaat tamit si. maanaam jataay bu yaatu bi nga ñu may ñu mën a maanaam séddoo ak askan bi li nga xam ne rek lenn la si suñu liggéey rek fàttali nag ne nit ñi kenn ku si nekk rek mbir mi da nga ko war a def sa mbiru bopp nekkul mbiru tostan nekkul mbiru gouvernement nekkul mbiru ma Masamba wala demba wàllu maanaam wir gi yaramu askan bi la wàllu wér gi yaramu jigéen ñi la te defe naa kenn ku si nekk rek war nga mën a dugal sa loxo ngir askan bi soppil seen nekkin seen bopp seen nekkin di la sant ak a rek si jataay bu yaatu bi ñu may